الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ca di leen dénk ngeen ragal yàlla xam ne diine ji yàlla wàccee ci suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon sant na ko nay waaraate nay waar nit ñi nay xubbu nit ñi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam gën caa taxaw gën caa rafetu taxawaay suñu delloo ci waaraate yëpp daan waaraate ca xutba yàlla wala leneen du dul loolu la gënoon a feeñ ci njàngalam yeneen ci bi mooy daf bari woon di leen jàngal alquranul karim alquran jooju la suñu borom waxoon yeneen taba fa zakkir bil quran man yaxaafu waayid booy waar del waare ci alquran dana jëriñ ña nga xam ni dañoo ragal la yàlla subhanahu wa taala di tëkko loolu moo tax suñu xutba bi wees ñu ngi doon jéem a indi lenn ci ay solution yoo xam ne suñ ko defee dana indi jàmm ci ñaari way dencante ya mooy ci kër ya donte ne mbokk kër yooyu la nga xam ni moom lañ cay xaar mooy meññeentug njaboot njaboot boobu it dañ leen war a yar amma yar bañ leen di yar lenn ci doomu aadama yi juum nañ ca dañoo jàpp ne njaboot gi moom seetal la leen neex nga taxaw ci ci lu jëm seen wàllu àdduna ak lu leen di bànneexal dana am ñeneen ñoo xam ni ñoom doole la ñuy bëgg a jëfandikoo mooy xale yi ñu tëj leen du ñu génn guddi du ñu génn bëccëg donte ne ne mbokk yooyu yépp ay mbir la yoo xam ni mënul matal abadan ba jullit bi am njaboot goo xam ni day doon bu jaar fa neex yàlla subhanahu wa taala kon mu def leneen leneen loolu nan la ko lislaam gisee mooy njaboot gi dañ leen war a yar njaboot gi dañ leen war a jàngal ana ci luñ leen di yare ak luñ leen di jàngal mooy la nga xam ne moo jóge woon ci seen boroom yàlla mi leen sàkk dénk la ko yàlla moom moo gën a xam fan la njaboot gi di jóge looloo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala téeréem bu tedd bi mu ne def na ko muy téere boo xam ne ruux la ko tuddee wa kazalika awhayna ilayka ruuxan min amrina ca mooy ni ruux di dundale ak jëmm noonu la alquran di dundale xol gannaaw ba suñu borom yàlla tuddee ko la nga xam ne mooy leer walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min ibadina leer googu tey bu doon doomu aadama yi dañuy daw guddi ak seeni oto bépp oto bu amul lumière la chaque ne dana dal ci lu mu bëggul a dal wala keneen dal ci kawam ca bëgguloon a dal ci moom kon xale bi fokk mu am préparation am leer bu jógee ci boroomam loolu rek mooy tax ba ëllëgi ki si biir fu mu mën a dund ci kaw suuf ñooñee nit yéeféer lañu ñooñee bokkaalikat lañu ay nit bidaa lañu ak luñ ko mën a bànneexal ak luñ ko mën a tëkkoo du tax mukk mu ànd ak ñoom ci loolu loolu moo tax ba mbokk julit suñu borom dañuy wax ni alquran ji day day jëmi ca la nga xam ne moo gën a màgg ñu ngi noonu ba pare di dëggal julit ñi ci jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira suñu borom yàlla wan ñi benn jaamam boo xam ni da koo jëkk a tagg doog ñu koo joxañ ngiri waajur yépp jël ci moom misaal jaam boobu mooy luqmaan lu bari ci borom xam-xam yi sax dañ ne moom nit ku ñuul la woon waaye loolu sax itteelul la itteel mooy la ko yàlla tagge nee na moo ko mayoon xikma te xikma mooy lu nekk nga xam fa fu mu war a tege nga teg ko fa lu mu mën a doon nga xam noo koy war a jëfandikoo moom la suñu borom yàlla ne képp ku yàlla may xikma day may na la xéewal gu rëy rëy rëy ci àdduna borom boobu subhanahu wa taala ne may na ko xikma loolu pour wani lii muy nar a netti li mu jóge ci moom nga la may yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a jëfandikoo lii di yar bu normal kaay déglu fan la luqmaan jaar ak doomam borom bi bi mu ko mayee xukma xikma nee na ko luqmaan bokkal ci ñi may sant mbokk lan mooy sant yàlla mooy nga yëg ni mboole mi xéewal ci yàlla rek la jóge nga yëg ne da nga koo war a feeñal ci saw làmmiñ ba nit ñi xam loolu ci yow na yow santoo ko dul yàlla waaye it xéewal gu nekk daalaat sant spécialam sant yàlla ciy bët mooy fexe bancaa nekk di xool lu ko neexul sant yàlla ci dégg mooy bañ a toog di ci déglu lu ko neexul nu ñuy sant yàlla suñu njaboot mooy teete leen fexe ba dox suñu digganteeg ñoom ak sawara qu anfusakum wa ahlikum naara ca loolu mënul nekk lu dul ne njaboot googu dañ leen a jàngal diine waaye yar leen ci diine kon santal sa borom borom bi nee na man boo ma santee ma dolli la soo ma weddee samay mbogal tar na te mbokk njaboot gi heure bu dee na sa yéene mooy fexe teg leen fi neex yàlla yàlla dana leen yàlla dana leen tàggat gannaaw ba wëlbati leen teg leen fi nga xam ne moo la neex yow amma bu dee sa jibluwaay ci sa njaboot mooy dab sa bànneex ci ñoom wala dab bànneexu njaboot gi suñu borom yàlla dana wëlbati njaboot googu mu di nekk la nga xam ne mooy fitna ñeel la borom boobu nag mu ni man ko woomle la boo ma santee sa bopp tax ngay sant soo ma santul yaa xam ci yow lay dellu suñu borom féetewoo kaddug luqmaan ngir comme mi ngi wax ak doomam borom bi féetewoo kaddu ga daa di ne ah ay luqmaan déglul ba luqmaan di wax ay yow sama doom bul nekk mukk di bokkaale ak sa borom bokkaale day tooñ gu rëy la nga la yow mbokk julit xamal ne day xëy na judd nga dara jaralu la ci kaw suuf ngay njaaloo dara jaralu la naan sangara dara jaralu la sàcc waaye day nga boole woon njaaloo naan sangara ak sàcc te yàlla musal la ci bokkaale moo gën ngay bokkaale te doo def ci loolu dara xamal ne la gën a rëy looy gën a moytu yow julit fexeel ba sa xol bii bu ci gëm ku dul yàlla bu ci yaakaar ku dul yàlla bu ci sukkandiku lu dul ci yàlla jalla wa ala keñal koo ko ca bokkaale loolu mooy tooñ gi gën a rëy ci tooñ yi doonte na ka rey nit tooñ na ka naan sangara tooñ na ka carte tooñ na waaye tooñ gi gën a rëy mooy bokkaale zulmun azim borom bi nag ne maa dénk doom ci way juram ndax way jur yooyu kat sa yaay moo la ëmboon ci coono wasin la ci coono nampal la ñaari at loolee suñu borom ba mu koy tudd yow jeune bii déglu bàyyi moom gis nga li muy def bàyyi sonn ci tabax kër gi bàyyi sonn ci fay facture yi ci fay njàng mi ku feebar mu faj loolu kon yaa ngi koy gis am naa nag la nga xam ne fàtte nga ko mooy fa sa bàyyi fa sa yaay jaaroon ak yow mu ne ko nag yaay moo jaar ak yow fii yépp kon sant ma ca sant say way jur ca loolu mbokk yàlla ko lënkale du ko teqale abadan comme ni mu lënkalee topp yàlla topp yonent yàlla noonu la lënkalee sant yàlla sant way jur képp ku jóg ne man damay jaamu yàlla waaye samay waajur samay nekkul ci ñoom la ngay jaamoo yàlla yàlla bëggatu ko xam leen ne mbokk jaamu yàlla yi ci gën a kawee bokk la ci def njëkk say waajur abdullah ibn masud ba mu laajee yonent yàlla ba ban jëf moo gën ci jëf yi def na ko mooy ngay julli ca waxtu wa mu ne ko waaw gannaaw ba mu ne ko ngay def ñekk say wayjur mu ne ko gannaaw ba mu ne ko nga dem jihaati fi sabilillah kon ndekete waajee gàddu jaasim wala char de combat di jihaat ak yéeféer yi ngir kàddu yàlla taxaw waajee toog ca këram di dab bànneexu way juram kookee da ngay gis mooy ka nga xam ne moo ko ëpp ay daraja loolu ñu mën koo dégg ci loolu mbokk way jur yaa ngoogee suñu borom yàlla nag ne même bu doon dañoo jóg di xeex ak yow ngir dugal na ci bokkaale ngal la waay bu leen ca topp waaye nag nekk nag ñoom ci àdduna ci njëkk mbokk loolu lu ñuy jàngal mooy woy jur lum la mën a def ci kaw suuf waroo dogoog moom lu tax ndax la gënoon a màgg mooy muy xeex ak yow pour nga bokkaale suñu borom yàlla lu ñu sant mooy loolu mu lay sant moom bu ko def abadan te mooy la taata li maxluq fi masiyati lxaaliq suñu borom tudd na bokkaale waaye tudd na mboolem ndigal yi ak tere ya mboolem ndigal yàlla lu la ci waajur sant ne la bàyyi ko bu ko bàyyi yow xale bu jigéen sa ndey sa baay say maam ñépp daje cib néeg ne la sa muuraay gi lañ bëgg nga dindi ko na la dee jaral dem di dindi loolu waaye tamit buñ ne la woon yow li nga xam ne ab jeune nga lii nga xam ne nii day mooy accord da nga koy bàyyi laa adduna yépp du tax nga bàyyi ko kon loolu lañu suñu borom yàlla sant ci loolu borom boobu nag ne yéen ñépp ci man ngeen di dellu muy waajur wi ak doom yi ndax naam waajur de kilifa la jëkkër kilifa la kum mën a doon mën naa doon kilifa waaye kilifa yi kilifa yi mooy borom bi subhanahu wa taala ci moom la lépp di dellu borom boobu it daa di wax ni luqman na doomam tappal ma yoonu ña jëng jëm ci man mbokk doomu aadama munoo ñàkk royukaay munoo ñàkk lu ñuy tuddee ab sëriñ waaye kan mooy ab sëriñ mbokk ab sëriñ ab royukaay mooy koo xam ne yàlla rek lay jaamu bokkaaliwu ko ak dara may la muy woote ca yàlla rek lay jóge du lu maamam sos wala lu baayam sos ca la muy woote jëme ca yàlla dong lay woote jëme mi ngi noonu anaaba ilayya dafa jëng jëm ci man lii mbokk doon mbir boo xam ne ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu jéem a bàyyi xel ci loolu mooy kon yow ndawal julit adduna bi ak a bëri ay rëyukaay am na ñoo xam ne xool nañ footballkat yi leen yéen ñu jéem a mel na ñoom seen bopp yi ñu def ko comme mboppi footballkat ya am na ñoo xam ne nii musiciens yi siiw la ñuy yéem am na ñoo xam ne mbër yi la ñuy yéem am na ñoo xam ne it ay nit ñoo réeroo seen i xel wëlba ci leen ngir mbooloo mu bëri mi ñu yor ak alal ju bëri bu ñu yor ba tax ñooñu ñu yéem leen waaye mbokk yow ndawal julit ka la yéem ci kaw suuf mooy ka nga gis ne dafa teg tànkam ci alquran ak sunna lii mooy la nga xam ni mooy war a nekk sa jëbluwaay bi gën a màgg borom boobu it subhanahu wa taala gannaaw ba dellu siwaat ca la nga xamee ni nii moom mooy dénkaane luqmaan boobu ba mu doon dénk doomam ja te mooy ay sama doom xamal ne foo mën a nekk ci kaw suuf bu doon da ngaa tëju woon ci biir montagne wala nga demoon ci kaw asamaan yi wala nga mënoon a gas suuf dugg ca amul looy mën a def mu néew wala mu bari lu dul yàlla dana la ko indil yowmal qiyaama yàlla dana la ci réglé yàlla fay la ci lëmméngool na doon loolu lu baax la loolu lu bon la mbokk yarkat bii da ngay gis ni mi ngi boole doomam ak yàlla ndax kat sa doom lépp loo xam ne yaa ngi ko koy tëkkoo bis bu làqoo mën koo def ndax gisatu la amma moom bu jàppee ne yàlla subhanahu wa taala mooy ki koy surveiller yàlla subhanahu wa taala mooy ki ko nar a rey dékkal ko loolee mbokk da ngay gis ne dafay tax ba xale boobee am taxawaay bu rafet ci kaw suuf ndax day xam ne ku ne mën na koo nëbbu waaye mënul nëbbu mukk la nga xam ne mooy boroomam te lii it mbokk boo gisee tey dëkk yi gën a sonn ci ay police ay gendarmerie ay façon homme de tenue bu nekk ngir jéem a saxal dëggit lu ci bari du tey nit ñi ñu ngi continuer di jargati lu tax mooy du fu nekk la alkaati mën a teew du fu ne la gendarme mën a teew amma nit ñi bu ñu leen yaroon ci ragal seen boroom xam ne yow foo mën a nekk yàlla subhanahu wa taala mi ngi lay gis ca yàlla moomu dana la ko nettali yowm alqiyaama loolu mooy la nga xam ne mooy la gën a mat luqmaan dellu si ci doomam ne ko ay sama doom fexeel di taxawal julli mbokk taxawal julli yow mi bëgg a yar yar bu réussir xamal ne la nga xamee ne nii mooy la ci gën a mat fexeel ba sa njaboot du ñu faat julli boo fexee ba sa njaboot du ñu faat julli góor ak jigéen quatre-vingt-dix pour cent ca yar réussir nga ko waaye mbokk képp ku sàgg ne julli sàgg ne leneen moo gën a yëy ci moom mu ne ko ay sama doom del digle lu baax cay teru lu bon mbokk àdduna ñaari force ñoo koy xëccoo mooy force bu bon ak bu baax boo bëggee fexe ba ñu bon ñu dañ la yóbbaale nekkal ci lu baax cay woote ci lu baax ni ngi noonu boo demee ñiy jàngale ay yeneen xam-xam sax dañ naan la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer doomu aadama li nga gëm da nga koy feeñal man jullit laa jaamu yàlla la waxtu julli jot na e sawaay kaay leen dem julli ji mi ngi noonu lépp loo xam ne lu bon la nga leen hey ñun ay jullit lañu doomu jullit du def lii saxal ci loolu di déglu lu baax di teru lu bon waaye nag préparel ndax amul kenn kuy jóg di dem di déglu lu baax di teru lu bon loolu mi ngi koy xaar xas yu métti jimpi yu métti sabote yu métti mën na am sax mën na dem ba mu am ca leneen lu gën a garaw loolu waaye yow préparé loolu góor jigéen heure boo jógee bëgg a dund diine bëgg a woon nit ñi ci diine xamal ne waajalal moo tax luqmaan ne ko wasbir ala ma asaabak bu boobaa nag muñal ci li la nar a dal ci loolu ndax nekkul mbir moo xam ne mbir bu yomb la ca loolu la ñu suñu borom di wax te saar ba gën a matale ca la nga xam ne mooy wal asr nit ñi perte nañu bu dul ñi gëm cay def lu baax di dénkante muñ waaye nag mu teg ci dénkante dëgg mbokk la nga xamee ni nii moom la ci luqmaan teg mooy ay sama doom fexeel ba nit ñi bu leen xeet bu nekk di dummoo yu nit ñi loolee da ngay gis ne mbokk itamit savoir vivre la koy jàngal mooy julit nga xam ne doomu aadama nga ci biir doomu aadama yi kan mooy ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla loolee kon kan mooy ki gën a ragal yàlla kenn xamu ko kon koo gis rek respecté ko jox ko cër alal gi la yàlla jox xam-xam bi la yàlla jox pal gi la yàlla jox nañ koy ci tali adduna yi même bu doon général ministre président ak lu mën a doon loolu ay pal la rek waaye ñun ñoo bokk fi ñu déparé ay liir lañu woon ñoo bokk fu ñuy mujj ay néew la ñuy doon su ko defee kon bul xeeb kenn bul nekk di toroxal kenn mu ne ko it ay sama doom fexeel ba bul nekk di dox ci kaw suuf di puukaréew yàlla bëggul kenn kuy puukaréew heure booy dox diggu doomu ci say dox ca loolu itamit muy wane mbir mu mën a doon yow diggu doomu ca fexeel it ana fan ngay dox jëm ana fan nga dul war a dox jëm yii mbokk da ngay gis ne ay njàngale la yu luqmaan jàngal doomam gannaaw bu mu ne koy sama doom ngal la waaye del wàcce sa baat mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala bëggul doomu aadama boo xam ne da ngay nekk ab dominateur képp koy dagg santeel yuuxu coow ba man koo gañe comme ni nga xamee ne noonu ngeen di gis seen débat rajo télévisé yi ab julit dafay doon koo xam ni day doon ko dal doon ko modeste te it rawatina ab kàddoom du ko paasale fa mu war a yem te bokk na loolu mbokk natt bu ñu ci yàlla natt ñun africain africain dafa doon koo xam ne ku xumb la soo demee tubaab yeeg chinois yi dañuy xasa loolu te it loolu mbokk diine l'islam day moo ko jëkk a ŋàññi ay nit nekk fii di nelaw nga gis ay ñetti nit toog te di waxtaan di xaqataay di yuuxu ça va une heure du matin deux heures du matin seen yoon ni wu ci mbokk loolu nekkul lu jàmm na ngay wàcce sa kaddu loolu nag firiwul ni ñi ko yenn nit ñi déggee mooy man kat ab sëriñ laa kenn warul dégg sama kaddu bay wax naan nun nun nun nun nun am benn waay taxaw sa kanam di la jottalil mbokk loolu moom ak réer la yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a tedd ci ñi tedd te bu ma saan taxaw fii ma taxaw amul kenn ku ma saan taxaw ci wetam di ko jottalil day wax jumaa yépp di dégg loolee kon dañ cee war a bàyyi xel ala kulli xaal borom bi subhanahu wa taala daa di ne li yàlla gën a bañ ci kaddu yi may kaddu mbaam ci ñi xam mbaam day toog moom rek di yuuxu muy dem ay kilomètres loolu mbokk ku ne war cee bàyyi xel su ma defee mbokk njàngile mi mooy lu manqué tey julit ñi ana ban këri julit ngay dem gis borom kër ga toog ak njabootam di leen waxtaan ak ñoom ci yàlla ñun ñëpp remplacé nañ loolu ci ab télévision boo xam ne ku ne ci ñun rus na ñu dugg sa saal ci ab télévision nekk fa ñooñu ñooy wax ak njaboot gi su ko defee loolu nar a indi problème yi nga xam ne moo ñu jur yëpp xale yi muhammad lañ tudd fatima lañ tudd ñu ngi yaroo ci suñu biir waaye xalaat yi leen di alimenté mooy yuy jóge occident amma julit yaay ki nga xam ne da nga am responsabilité boo xam ne yaa ngi ñëw ci kanamu borom mu laaj la noo ci taxawe woon na am bu kerew ga da nga mën a wax yàlla tabaxaloon naa leen kër añ manquéwul reer manquéwul étude yëpp fayoon naa ko ku feebar ma jóg mais nag sa seen wàllu diine lan nga ci taxawoon ak ñoom keroog ngeen ñu bëri daañu sëggal seen loos yal na yàlla musal ñu ci waaye mbokk it képp koo xam ne dañ koy yar yara ko ñu luqmaan yara woon doomam heure lu bu mu koy wax lu mu koy wax ay sama doom ay sama doom ay wane ko ne dama laa yërëm wane ko ne du intérêt lay wax ak yow wane ko ne dama laa bëgg loolu it mooy la nga xamee ne yaay ak baay ku ne war na yare noonu njabootam di lewatal say kaddu di wax ak ñoom kaddu yu leer ba xale bi yëg na yow kat liñ koy digal yërëmaande la bu jóge ci yow ak cefeel bu jóge ci yow waaye du rek ay ordre yoo bëgg pour ñu topp say ndigal lii képp koo xam ne ni bàyyi na ci xel day gis ne moom la yonenti yàlla Muusa ak Haruna gannaaw yoo woon beneen di yàlla yu ni ci firawna ak firawna nam bane woon nam bëree woon waaye yàlla def na leen bu ngeen demee wax leen ko wax yu nooy loolu mën na tax mu fàttaliku wala mu ragal yàlla mbokk kii mooy luqmaan kii la ñu yàlla royloo yàlla na yàlla may ñu xikma bam ko mayoon yàlla na yàlla teeteel ñu suñu njaboot def ci ñoom ngëm gu sell def ci ñoom teggin yu sell def ci ñoom tàggatu ci wàllu diine yàlla na yàlla bañ loo leen lépp lu leen yàqal seen diine yàlla na yàlla defal ñu mujj gu rafet yàlla dajal ñu ci àjjanaam yu kawe ya allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين